te ñu xam ne waxtu wu kilifteef notee xam-xam du gaaw a feeñ te xel mu rafet dafay réer kon tànn jëmmi nit ki ngiri atam mbaa fa mu bokk tànn ko ca lamu xam da koo gën ndax nit mënula jëf lu mu xamul te yoon wi bari na ay gàllankoor te dara waralu ko lu weesu ku xam am na foo ko dul waxe ku man am na foo ko dul jëfe te lii lépp nag mën naa yeexal lu waroon a gaaw yoonu murit mag ña fekk woon jamonoy sëriñ bi daawuñu noppalu ci lépp luy dundal yoon wi ak lu koy sellal te daawuñu umpante léegi nag ku ne dafay toog sab roq di xaar ñu séddalab cër te jëfaloo yoon wi dara waaye noonu la yoon wi ami ay kilifa yu xam aw yoon te tege ca ñooñee ñi ngi def lu ñu man ci sàmm seen ngor ak seen diine waaye jamono soppiku na ba foofi dem li ëpp ci nit ñi ka gën a jubadi moom la ñuy jiital te yoonu murit nag ku ci mënula yokk lu rafet la nga ñaawle bay boo nga téye ko te xam ne yoon wi soxlawu ko mbooleem nag ñi ci ab juddu taxa doon kilifa te jëfuñu lu ñuy nawe yoon wi lu dul seeni jëf di xeeblu yoon wi te li ñuy dunde lépp di jóge ci biir yoon wi te xëyalu lu ñu lislaam gonta lu ñu ko ñooñu nag lu naqari nit ci yoon wi seeni jëf nga tax ku ne la nga doon mooy feeñ ci saw doxin loolu moo tax yoon wi soxlawul kilifa yu dëniirlu dafa soxlawoo kilifa yu xam li xew dafa soxlawoo kilifa yu farlu ci njaboot gi waaye soxlawul kilifa yu ragal seeni wareef te doxin te doxinu yoon wi li ko tax a diib weesuwul kenn ku ne jàpp nga ne li la ci war sa moroom a ko war a def ñenn ñi waroon di setal faf di taqal bari na koo ci ormaal ngir la maamam jëfoon nga gis ne jikkoom sore na ak jëfi maamam moo tax yoon wi ñu bari njàmbaaru mag ña la ñuy bàkkoo moo tax seenug yaafus moo leen di weer ba tey ñooy jël kuy door a jébbulu teg ko fu kawe fekk na kuréel bu mag la fi toogal te nëgëni waroon naa fekk kuréel buy xeex diine boo fi naree samp sa nit ñu teel koo xam loolu dara waralu ko lu dul ay bokk yu nanguwul a waxtaan te nëgëni waroon naa fekk benn kilifa du aajowoo ay financement ba ñuy takk buum ci baatam te doole ji yoonu murid yor bu fekkoon lu ñuy nas lu ne diisoo ci ak boroomi xam-xam ak boroomi xel yu doylu te dana yombal lool ñu yor alal te yéene ko yoon wi seeni jëf mën a yaatu waaye fileeg bàyyiwuñu di jiital nit ku xamul mënul ci lu ñépp bokk di ba bàyyiwuñu di jiital nit ku xamul mënul ci lu bokk ngir di parparloo ak a sàkk péete moo waral ñi xàmmee ñépp te amuñu baat ci yoon wi waaye yàlla jox na leen lu ñu mën a jàppalee ñu yor baat téye nañu seeni alal yàlla jox na leen wërsëgu àdduna waaye am nañu xelum xàmmee fu ñuy sàkkoo lu baax bari na lool ñu mënoon di joxe alal ji takku ci yoon wi at mu jot waaye lay tax loolaa am taxawagul kon bu benn sëriñ séentu ci ñoom addee addee ju lay fajal soxla kon bu benn sëriñ séentu ci ñoom addee ju lay fajal soxla kon itte yu bari taxaw na yoon wi aajawoo ko boroom xam-xam yaa ngi fi boroom xel yu rafet yaa ngi fi boroom alal yaa ngi teew ñi yor seeni doole ñi ngi teew kon li tee mbir mi dox mat naa seet te bañ cee dugal maslaa bu ëpp bokk na ci liy tayeloo nit ñi jiital koo xam ne mënula lijjanti mbirum boppam te mënula jàng wenn araf door koo siñe nga bëgg koo lijjantiloo mbirum nit ñi bokk na ci liy tayeloo nit ñi alal ji ñépp bokk te ñenn di ko jariñoo bokk na ci li xaw a jaaxal taalibe yi bu gouvernement di fayeeku impôt taalibe yi jëkk a fay ak néew ji doole yi te lu état di séddale ñoo cay gën a néewle bu courant sering sëriñ sa séddoo ko forage ñu yóbbu seeni tool ker. ñu wërale ko seeni kër te mboolem lu état bi di joxe Touba ba noppi ñu génne ko dëkk bi aka bari te aka fee xajoon ndax mboolem mbedd yu mag yi nekk ci dëkk bi mbedd yi nit ñi di gën a jaar kenn godoronewu ko ki war a bu dee gàttandu dana am ñu sonn te loolu état ci état da ciy profito ba la ko war lépp bu ko deful duñu ko sañ kon yoonu murit borom wàcc na li ko ci war def na ko te yoon wi mankilewul dara nañu bàyyi diw sama taalibe ak ci kër gi la bokk nañu ko jiital loolu war na fee jóge kër yépp seen borom benn la te mooy sëriñ Touba bu loolu jàllee ma wax ak gone yu góor yi ak yu jigéen yi te ñu am yéene soobu ci mbirum politique ma di leen laabiire ku ci jàng bu mu la yàqal sam njàng ndax bu sam njàng eggee ëllëg nga doon kilifa moo gën ñu lay yilif bu fekkee jigéen nga ju nekk ci sa biir néegub sëy bu la politique jaral sëb sëy di tas te dafa am lu rafetul te xel nanguwu ko te ku ne xam na ne politique senegaal Sénégal léeg mu réerale ay nit te njariñ la ci ëpp du egsi ca ñoom kon ña cay jariñu ñoo ca gën a néewle ñoo ca gën a néewub coono kon ña cay jariñu ñoo ca gën a néewub coono Touba gii nag tappalekat yi fi tappalekat yi fi sol mbubbum taalibe tey ànd ak lenn ci ay doomi kilifa te ñu bari xam nañu fa ñuy daje guddi di tër seeni pexe bu ñu xëyee tàqalikoo bu guddee ñu dajewaat te lañuy tër ak a fexe lenn gënu ci ci yoonu murit te doonul lu baax ci taalibey sëriñ Touba yi jëmm yii fi nekke loolu nag ku ci njabootu sëriñ Touba gi ba noppi xam leen nangoo ànd ak ñoom ca seenu melo ku ko def ku ne war nga yoonu murit war nga taalibey sëriñ Touba yi te genn kilifa gu nekk ci yoon wi warula seetaan naa feq yi ci biir yoon wi nara ànd ak nooni sëriñ Tuubaa di teg fitna taalibe yi murit moo tax taalibe yi bees yi xew ci jamono ji kilifa ju kilifa gu ñu dox sa digg ak sa nit yi démb walla ñu tere laa wax ak say bokk danañu la dugal ci guta loolu tax na kilifa war di moytu diisoo war di moytu diisoo ku amulum xel wala muy diisoo wala muy jaxasoo ku di moo tax kilifa li gën ci moom mooy mu wut ñu muy diisool tey bañ a gaaw a jël ay décision diisoo nag daawee su ko def ak ab jàmbur daawee su ko def ak ku ab dépense am doyul daawee su ko def ak borom xel mu gàtt xam ngeen ne lii fi xew daaw ci Touba xëy xëy di tojaka dajji di làqatoo ndigal te mi ngi nii tey mujjul fenn te ñaata jàkka lañu fi toj ñaata bare bi liggéeyukaay lañu fi yàq te ñépp war a yemub àtte ak ñi ñu laalul mbir nag bu ca ñépp yemee da nga leen a war a yemale waaye yàqal ñi bàyyi ñee ak tooñ ku fés la te baatu kilifa kenn du ko xeexe dëkk bii di tuuba mboolem ñi fi dëkk si ñenn ñi fii lañu ñu juddoo am ñu toxoo ci yeneen di dëkk dikk fi te lañu fa doon liggéeye mënuñu ko liggéeye fii ci dëkk bi te fekkuñu fi ay liggéeyukaay loolu tax na ku xëy wuti foo ruur sa bopp góor ak jigéen ku ne di lijjanti loo yët sa njaboot kon néew ji doole yi ci dëkk bii te gàddaay te xalaatuñoo dellu mat nañoo dimbali wutal leen ay liggéeyukaay te bañ leen a fitnaal te ñoom itam ñu yem ci seenub liggéey te boole ci yar ak i teggiin tey sàmmoonte ak orma yi war ci dëkk bi te kenn bañ koo niroole ak dëkk ba nga toxoo ba dikk fii ndax kenn ku ne la nga yaakaar ci Tuubaa ba tax la fee dëkk si la la koy yombalal mooy nga jub tey jubal ñi nga xam ne nag dara indiwu leen fi lu dul wutum alal te moo leen fi bàyyi nañu ci yem te te bu ñu jéem a gàllankoor jaaykat yu ndaw yi ndax ku fi yor lu bari tey ba tax laa fuuy ci lu ndaw nga tàmbulee te dëkk bii li fi boroom ñaanoon boroomam ba mu nangul ko ko lépp luy aw yiw fii la jëm si te lépp luy lor du fi egsi ndax sëriñ bi nee na wa maskanan li jal bi kulli xayri wa maskanan li dafxi kulli dayri teg ca ne wa sababan li fatti xayril xaybi wa sababan li dafxi dayril bi mu dellu ñaanaat boroomam ne ko wa ardahu ijhal arda risqin wa amaan wa rahmatin wa saatin kulla ab bii di Touba ngir wërsëg bari fi ak sécurité ak yërmande ak yaatal ñépp lii war naa tax ku ñu fi dénk ab cër war ngaa gaaw te farlu lu ko moy sëriñ Touba lay follil boppam ndax ñaan gi nangu na te ku ci bëgg indi benn gàllankoor mu jëlee la fi am marché nag dafa war yaatu te set marché yi eggul nañu leen eggale te jox ko ñi bëgg a liggéey te seeni doole bariwul te ñu bañ koo jox sëriñ su ndaw si ak commerçant yu mag yi ndax bu ñu ko deful mu soppaliku dëkkuwaayu ña di dëkk bii nag di Touba fileeg ràññeewuñu ñi fi nekkal seen bopp ak ñi fi nekkal mbooloo mi mbir yi du gaaw a leer ndax dafay am ay groupe yoo xam ne ñi ngi ci biir yoonu murit te lenn ñoru leen lu dul seen bopp xalifa général bu ñëw ñu fexe laa jege di la wan pastéef bu nekkul ci ñoom lu bari lu ñuy dégg ci yoon wi te neexul ñi sëriñ Touba itteel ñoo ko fi indi moo tax lii ñuy ñaanal xalifa bii fi nekk yàlla na ko yàlla musal ca ñooñee te ñu naqaree moytu lañu ndax la leen tax a jóg mënee su koo xàmmee ci seenu melo ku yor alal mën nañu laa jaay seen diine mën nañu laa jaay seen tariixa mën nañu laa jaay seenu juddu moo tax kilifa gu leen xàmmeewul mën nañu laa juumloo wala say résultat du bari moo tax yoonu murit ku am yéene ngir jàppale xalifa général tàmbulee ko ci sa jëmmi bopp ak sa njaboot kenn ku ne fexe koo teggil ab coono ci sa bopp ak ña nga jaboote te ab xalifa général képp ku koy gàll ay intervention nar nga koo xañ libertéem te ni yoon wi toll te baree ko ay kilifa xanaa bu ku ne defee wareefam taalibe yi seeni bët waru la xong te kilifa ay pexeem waru la jeex te kuy def lu ñu la jox nga jël waruloo di jëlale soxlay jàmbur yi fii may jeexale nag mooy diwoo woo bokki jullit ci bennoo te xam ne li ñu war bari na te bokk na ci seet li bokkul ci génne ñi xamul ñu xamal leen ñi réer ñu ginde leen ñu gindi leen te xàmmee yoon wa te yoon wa ñu koy jaarale ndax laa ikraha fi diin te ñu bañ te ñu bañ a te bu ñu góor góorloo te bu ñu góorgóorloo ba rëcc rëcc yi man ba rëcc rëcc yi wees mën naa sabab rëcci rëcc yi bañ a bari mën naa sabab ñi du ñi dul ay jullit xemmeem diine ji te ku la ñeewul ca la nga ne du la fekk si te képp ku bëgg a liggéeyal yàlla tool bi yaatu na nag ku ne fexe ba waaram set te ku ne di rafetal njortam ci moroomam maa ngi baalu àq ñëpp te di leen baalu àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.